سيدنا محمد المؤمنين yaa

وقدمي جعلت مثل أسجدي وأسوي حبيبي محمد الفرق بالتخيبي

Amen. سوى الأنوار يا من كوالي بالنبي سالي

بعالم

إله إليه في ذا المدينة المنورة قد خدمي يا محسنا قد زورا bu nu jiitalee sant borom bi tabaraka wa taala julee ci rasulullah alayhi salaatu wasalaam di leen siyaaraate ci waxtu tedd bii nu dajeeti di ñaan suñu borom mu dal nu ndimbal nu gën a bëgg xaadim rasul gën a doon taalibeem te yàlla na Sëñ Tuubaa nangul te teelu boppam mu mel ni tey Sëriñ Tuubaa dafa ubbi bunt bu jafe fekk lu ñu defar ba fermi ko tëj ko mu jàll nga ñëw ni nan ko ubbi waat daa ci bëgg a bokk foofu la sëñ bi waxe tey xam nga lu mel ni balaa weeru koor bii la woon lañu egg ak ulay bi ak yu mel nii ñoom nga xam ne xar yoon bi xare na ko ci lislaam képp ku mu sab ngàb bu jaasi ànd ak Seydina alayhi salaatu wasalaam dugg ci toolu xare bi benn nga des ca wala boo desoo sax ñibbi nga waaye ba nga ñibbee nga yóbbaale handicap mooy cër bu dagg bët bu bënn mbaa genn wàllu nit ñooñee bi xar bi jàllee yonent bi sallallahu daa wax ni koo xam ni fekke woon nga ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett yi àndoon ak man dem ci toolu xare bi mënatoo def yàlla lu ko naqari ci kaw suuf ndax ñooñu dañ leen a garanti rasulay wax alayhi salaatu wasalaam waxit ni loolu alxuraan wax ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen ñi ànd ak Muhammad alayhi salaatu wasalaam kunt yéen yéen a boobu tëju na yonent bi nag liggéey ba liggéey bi jeex saaba yu àndoon jeex ñépp génn àdduna nga xam ne kenn mënatu la mel ni ñoom dañuy wax ni yonent bee gën bi yàlla bind ci kaw suuf ñépp nangu nañ ko waaye ñi àndoon ak moom mu deen digal ñuy jëf di leen tere ñuy baax gannaaw rasulaay ñoo ñu yóbbu ci xeet bi gannaaw ñooñu ñoo ca toppaat gannaaw ñooñu ñoo ca toppaat gannaaw ñoo ca toppaat moom la ñu wax taabi ak bi bi gàddaay yonent bi amee junni at Tuubaa di ñaata mi xata mi xata rabia ba xatal alf bi bi bi gàddaay après mu ni damaa bëgg ñu tëbal ma junniy at yi ak ñeenti téeméer nga xam ne rawee nañ ma ko waxaalewu ma ko waaye bees bees ba nga xam ne yonent bi day xëy ñu xëy mu gont ñu gont mu toog ñu toog mu jóg mu jóg mu digle ñu def ci bees bees bi ñu nga xam ne ci minute yu bees yi une première minute yi seen planète ñooñu laa bëgg ñu bind saw tuuti ndax lu jafe ñooñu laa bëgg ñu bind ci saw tur borom bi ne ko li nga bëgg daa yóbbatu jamono bii nga nekk mboolem ñi nga fi daje ci wàlliyu ñëpp yaa ngi ci seen kaw am nga li nga am ne doy na sëkk boo nga présenté ko sama borom sëñ Tuubaa ni ko loolu de baax waaye sama bët jël fi nekkal ak li ñuy baax baax baax ñooñu baaxal ci ñuy la bëgg a bokk suñ borom dafa woo rasul alayhi salaatu wasalaam ne ko waxal sa waaj ginnaaw découragé naa ko bu tëkk te lii mu amako su néew su jéemee dugg ci biir biir guréel bii su am ko waxuma la bokk ca ñooña waaye li mu amoon sax da koy faf ñàkk li mu jot am ban moo raw gaa yi su ne damaa sonn ñàkk ko su dawee ñàkk ko suñ ko reyee ñàkk na kon nee ko daa ko yërëm daa ko bëgg ci yow ba yonent bi ñëw jéem a maslaa xalifaasoo ne ko li ñuy wax maqaamam xurbaaniya yaa ko takk li ñuy wax maqaamam xawus yaa ko yokk abdaal yeeg saalihiin yi lépp a ngi sa biir axamadu teen cee yem sëñ Tuubaa ni xaaju naa ba noppi kuréel bi sa ci yow nga xam ne boo na Muhammadu Rasulullah Siddiq teg ci Seydina Omar teg ci Seydina Ousmane teg ci Seydina Ali nee na mayuma kenn juróom yooyu bu jàllee kenn sa wenn tur jur saabis lii la Sëñ Tuubaa wax ndaw bokk ci daañu la natt natt bu mat ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett defe naa mooy sotti baax 285 deux cent quatre-vingt-cinq natt yoo xam ne benn natt bu ne ci natt yi ku ci mos a génnoo ci fa nga des kon dansé la ci yow maanaam amul natt bu ñuy teg sa kaw boo xam ne buur mus ko yoru dellu këram ku ci mos a dugg dellu soo suuboo ci yëpp te boo dee ñàkk boo boo defee ñàkk boo dee sonn naa ñàkk sëñ nga lu ëpp mu ne gi laa bindut xaw ma lu mu àttan ak lu mu àttan kañ lay faatu kañ bi faatu yaa ko yor waaye su ko ngor dee maye attan naa ko su ko fit dee maye attan naa ko su ko juddu bu dee maye attan naa ko su ko xam-xam dee maye attan naa ko du ma daw du ma dëpp du ma du ma raay ci yi laa gën tubaab ne ko kon bisimilah defal demande seen tubaab bind jox Rasulullah mu tàppe ñu jox yàlla mu classé ni ko kon liggéey bi tàmbali na daal koy boole yi mu ko booleel moo tax mu wa jumlatu rusuli fi kulli man fahum ya rabbiya sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam wa jumlatu rusuli wa kullul anbiyaa fi kulli man wa faqahum yaa rabbi yaa ngay dale wa jumlatul muslimi wa kulli anbiya fi kulli man wa faqahum yaa rabbi yaa aj ko tuuti ma dégg ndax seeram xaw a tàng wa jumlatul rusli wa kulli anbiya fi kulli man wa faqahum yaa rabbi yaa Xaadimu Rasuul damaa bëgg a liggéey. xalifa defal ma ko mu am martaba bu toll ni martaba gaa yooyee ci biir kuréel bi kooraakoor bi tàmbali na mu ne yàlla jërëjëf gërëm dugg naa ci terrain bi. yàlla naa ngi lay sant yow mi nga xam ne nu nga ma ba def nga ma. ci barke rasulullahi ma mel ni Aboubacar mel ni Omar mel ni Ousmane mel ni Aliou. kiif kiif nu ñu leen tudde tudde ma ni. ma dolli sa xéwal li nga xam ne koo ko def ci mu yéeg. barakallahu xam nga borom bi def na xaadim rasul daam daa mu tolloog darajay saxaaba yi ànd ak rasulillah borom bi defal na xaadim rasul xalimaam gi muy binde pilimam mu tolloog jeesi saxaaba yi doon xeex Badar ak Unayni borom bi defal na xadim rasul der bi muy nangu waree bind mu mel ne xeej jaroon jamante ci ca keroog ba daal borom bi def na xadim rasul moom ci jëmm boppam mu yor dara yee saxaaba bu ñuy wax Abubakar Sadiq defal na ko dara jeeju toll ni Seydina Omar defal na ko dara jeeju toll ni Seydina Ousmane defal na ko dara jeeju toll ni Abubakar Sadiq te bokku ñuy dara kenn ku nekk benn maxaama nga am Sëñ Tuubaa nee na seen maxaama yi yëpp la yàlla globalisé teg ko sama loxo ma mel ni ñoom boo léegi boo Abubakar fayu ko ma fayu ko boo man fayu ko ma fayu ko boo Usmaan fayu ko ma fayu ko ko ma la alxar mu ne may may kon ne moom ci liggéey wa surtout musliman jamia xasawaat waxu rasul lay kenn mboolem rasul yi ku sa xare lu la yàlla fay ca ba pare yàlla boolem boolem xare yi boolem yowti yëpp teg jox ma ko xadara xablu wajabat daxwati ba pare mënugul ma sama ñaan waxutu lii tax siima daraja bi gën a kawe ci maxaama yi wax xurba ak gën a jege yàlla nga xam ne kenn doxul sa digganteeg moom moo tax mu ne kenn watuma sëriñ borom tuba rasulaay kepp bu jàllee keneen tegu ci maaju ba ginnaaw rasulaay man ahmad xurba waxut tali fii kulli sey xurba yaa rabbana sali salaatan raxiya yëkkati ko يا ربنا صل صلاة لا بما يسر ya rabbana allahumma sa borom yow mi nga xam ne yaay borom takkusaan ya rabbana ay waay yàlla yow mi nga xam ne yaay borom timis ya rabbana yow sa borom bi nga xam ne yaay borom dee ya ibana yow rek yaay sama soppe ku dul yow soppuma la yaa ma digal nan nu julli ci yow bi anusaliya ala sayidina la si bariyati ala mooy sama yonent yàlla na nga def jàmm ci moom jàmm ju kawe yow mi nga xam doo wuute bu ñëpp demee yaa fi des est-ce que man ma wuutu Rasulullah sama ginnaaw kenn mënu maa wuutu man rasulillah Muhammad la tudd explique sama gannaaw di ko liggéeyal barakallahu yàlla yàlla defal jàmm defal nu ko defal ko mboolem jullit di sant presse bi bu baax a baax bis bu set ñu bari ñëw waa Nasrou TV Média yàlla yàlla defal leen tawfiix ah ci dégg ñoom say latir di bërki dem ba tey jóge sàkku liggéey bii nga ànd ko ñun nu ngi koy sant di sant soxna si di leen gërëm yéen ñi nga xam ne waa Thiès Impôts yéen a ngi teew yal yàlla fa seen aaju barke bi aleyhi salaatu wa salaam jërë wa rahmatullahi wa barakatu